asalaamaaleykum chers internet de la KSTV voilà ñuy amaat rek euh, mbégte bu baax di dellu si waat ak yéen ci seen émission le citoyen et comme ñu ko tàmm defee rek euh, mardi bu nekk ñuy dalal rek euh, benn invité pour waxtaanee thème boo xam ne dina amal solo population bi donc tey rek ñu war a waxtaanee li nga xamante ni c'est c'est une situation qui se passe au Sénégal actuellement mu nekk situation bi nga xamante ni képp kuy sénégalais yaa ngi koy dund. muy euh, la flambée de prix de denrées de première nécessité maanaam hausse des prix yi nga xamante ni moom la ñu nekk euh, di jànkonteel ci jamono ji yëpp ñu fas yéene ci waxtaan tey nag di dalal ki nga xamante ni moom mooy euh, monsieur Momar Ndao nekk nag président ASCOSEN maanaam association des consommateurs du Sénégal donc dañ koy bàyyi rek mu présenté wu balaa ñoo xuus ak yéen ci waxtaanu bés bi. waaw maa ngi lay fay soxna Fatou di nuyu ñiy seetaan ci biir mi ak bitim réew yëpp. man maa ngi tudd Momar Ndaw maay njiitu kuréel gi ñuy wooyee ASCOSEN maanaam mboraay mbootaayu kuréel waay jënd ak waay jëfandiku yi nekk ci biir réew mi muy association des consommateurs du Sénégal ñu koy dàkkantale ASCOSEN. voilà donc euh, monsieur Ndaw comme ni ma ko waxee euh, léegi rek nga nekk suñu gan ci li nga xamante ni moom mooy le citoyen bu bu tey ñu war a waxtaanee euh, la flambée des prix du de denrées de première nécessité comme ni nga ko gisee fan yi yëpp mu nekk situation bu xaw a compliqué ci euh, sénégalais yëpp donc tey ji bu ñu la waxoon monsieur Ndao nga defal ñu benn analyse wala nga wax ñu yow nan nga gisee situation euh, économique wala commerciale wu dëkk bi fi mu toll nii lan lay doon. waaw li may demoon d'abord damay masawu coono sénégalais yi ndax dañoo boole ñetti problème yu leen dalandoo benn bi mooy mbas mi beneen bi mooy mbënn teg ci yokk njëg yu seer yi donc sénégal yi dañoo sonn carrément ci li nga xamante ne bi mooy problème yooyu li ko waral nag na jàpp ne ñaari problème la benn bi lu jógee bitim réew la benn bi aussi loo xam ne ci biir réew mi la li jógee bitim réew dëgg la bitim réew am na ay produits yoo xam ne yu ci bari seen prix dafa yokk parce que li nga xam ne moom mooy transport bi dafa yokk bu baax ndax bi mbas mi amee ñu bari nombre de personnes yi daan liggéey ci poor yeeg yooyu suñ leen confiné day wàññeeku loolu moo indi perturbation ci njëgu transport bi au niveau mondial léegi nag su ko defee itam yenn prix yi tam day commencé di yéeg moo tax diwlin bi yéeg mais lu mel noonu bu amee bitim réew pour bañ consommateurs yi lot état dafa war a jóg taxaw ne nii ci diggante bi seet lu ci mun a yenu mu yenu ko pour que prix yi du yéeg beneen bi mooy problème yi nga xam ne moom moo nekk ci biir réew mi te dara defu ko lu dul ñàkk liggéey gi nga xam ne ki ñuy wax ministre du commerce moo ko ñàkk liggéey ndax boo xoolee li nga xam ne moom mooy euh, soble bi euh, tey jii jaay bitig yi ñu ngi koy jaayee diggante quatre cent cinq cent te boo demee ca euh, fañ koy bayee daanaka dañ la koy may kon d'accord nañ ki nga xam ne mooy bay mu am dara d'accord nañ ki koy jënd ci ñoom am dara ki mu koy jaay am dara ak ki koy jaay consommateur bi am dara ñooñu ñëpp dañu war a mos mais ci diggante bi ah, bu dee am na koo xam ne dafa xamp wala mu lump rek problème day am te loolu moo am su amee koo xam ne li muy gagné ci affaire bi dafa ëpp te ministre bi nga xam ne moo war a régler loolu croiser les bras toog di seetaan wala dem di def politique Kër Massar bàyyi liggéey bi ñu ko sant kon day sooxe muy benn beneen bi mooy suukar si ñëpp xam nañ ne suukar kenn mënu koo teg bët ba tax ñu yokk ko di ko jaay ay huit cent ñoomin te suukar mu nga am na compagnie sucrière sénégalaise muy CSS suukar Sénégal mu ngi fi ñoom am nañ vingt cinq mille tonnes de sucre yoo xam ne suukar bu mokk la ak boo ko boolee yëpp daal la fa nekk ci suukar ëpp na weer fanweeri junney euh, tonnes maanaam plus de trent mille ton de sucre suukar bu mokk ak bu bekk bi. kon manqué wul. su dee nag ñun gisuñ suukar ça veut dire que kon am na ay samba boo yu nekk ci digg bi di def loo xamante ni jaaduwul ba pare ministre du commerce di seetaan ñun loolu moo tax depuis janvier ñu ngi wax. wax nañ nag ba euh, président jël ay décision imposé ko ministre du commerce ne ko defal sa liggéey ndax wax na ko ko lu mat ñeenti conseil des ministres yoo xam ne wax na ko régler problème yi mais ndaw si man daal man xaw ma quel est son problème mais ba léegi daal kiiwuloo ah fi mu ne nii nag bi mu xamee ne léegi nag caaxaan jeex na ñun lañ doon wax ne na ko def bu yàgg ba léegi muy na jël arrêté wax ne prix bii nangam la war a jar ku ko romb dal sa kaw jël na arrêté boo xam ne depuis démb moom moom actuellement arrêté boobu moo wax ne par exemple diwlin litre mille deux cent la ku ko jaay lu ëpp loolu ñu roq sa ndig moo wax ne li nga xam ne suukar six cent la ku ko jaay ëpp loolu ñu roq sa moo wax ne kilo ceeb bi nga xam ne non parfumé la trois cent la ku ko romb ñu roq sa ndig et cetera loolu dañ doon xaar ci état mu jël ko depuis longtemps ba pare nag jël matuwaay yi nga xam ne mooy tax ba képp koo xam ne def nga ko ñu roq sa ndigg looloo tax gis nañ ne euh, état jox na leen à peu près ginnaaw li amoon ci ay matériel dolli na leen euh, trente cinq oto pour que ñu dutuñ am lay ne noo dañoo am problème mu oto wala nangam nangam pour def liggéey bi kon ñun gis nañ ne loolu mooy solution bi solution bi nag pour mu dox carrément il faut que consommateur bu ne ca fa nga ne soo fa gisee ñuy jaay suukar lu ëpp 600 nga woote ci numéro téléphone euh, service régional du commerce wala nga woote ci numéro téléphone ASCOSEN su ko defee euh, agent yi dem sur place verbaliser kooku bu beneen yoon du ko dolli. yi mais euh, par rapport ak nga xamante ni moom mooy effort effort yi ministre bi jël récemment alors que situation bi. c'est pas une chose récente te loo xamante ni ça date d'un peu longtemps parce que bañ bañ jëlee jafe-jafe bi mën nañ jàpp ne euh, ba mu commencé yokk 2012 la tàmbalee buñ jëlee dawlin bi commencé ci 600 di yokk di yokk di yokk ba tey mu ñëw ci litre. Euh, waaw à la décharge nag état Sénégal euh, temps yi nga xamee ne juste avant 2012 mhm. prix yi dafa yéegoon yéeg ba jéggi dayoon ndax pétrole bay yéegoon. léegi nag 2012 bi président Macky Sall ñëwee dafa tombé ak pétrole bi wàcc moo tax boo xoolee 2012 ba léegi daanaka juróom-ñeenti at yoo xam ne daanaka yokk amul ndax prix yi au niveau international comme baril bi wàcc na yéegloon looloo taxoon benn yokk presque amuloon su am te am ay benn benn lay doon léegi nag euh, dafa am yu bees yu ci rax mooy transport beek ñoomin seen booy xool fii ci réew mi bu njëkk suukar bitim réew la gënoon a yomb nga xam ne da nga daan dégg ñu naan gaa yaa ngi fraude jële Mauritanie wala Gambie et cetera dëkk yooyu nga xam dañuy importer rek mais actuellement dëkk yooyu seen suukar suukar bi ñuy jënge jëlee bitim réew kese la boobu nag dafa seer dafa seer ba tax fi mu ne ni euh, commerçant yi ñu ci bari dañuy jël suñu suukar di leen ko jaay ñoom pour gën a am bénéfice léegi nag imaginel tey bu fekkoon ne amuñ compagnie sucrière si on n'avait pas la compagnie sucrière ni kon lépp lu ñu jaayee prix bitim réew ci suukar dañuy obligé jënd ko mais soo amee compagnie sucrière su gars yi jaayee lu seer nga ne non non parce que tey jii six cent yi ñuy wax ni su fekkoon ne amuñ compagnie sucrière duñ ko mën a jaayee. d'accord mais kon jafe-jafe bi amoon ci euh, compagnie sucrière bi maanaam fan yii nii sachant am na ay tonnes et des tonnes yoo xamante ni ñu ñuy wax ni ba tey suukar bi gisuñu ko mais est-ce fi mu toll nii mun nañoo jël loolu en compte autant peut-être mënoon nañ ko mais fi mu toll nii gis nañ ne sucre am na ci dëkk bi alors que kenn mënu koo gis alors que compagnie bi nga xamante ni moom la ñuy wax ni moom la ñu am mu ngi ci biir dëkk bi. waaw loolu laa wax moo tax ma ne ministre du commerce moo dëppaloon liggéeyam. d'accord léegi nag président jox na ko instruction yu leer ne ko lii moom lijjanti ko amul explication amul dara moo tax actuellement Euh, loolu nga xam ne moo jëmoon ci suukar bi génnee na arrêté pour wax ne suukar bi mu ngi jar six cent francs suukar bu mokk képp ku ko jaay lu gën a seer wallaay maa ngi ñaan consommateur yi ngeen woote bu dee dakaar la service régional du commerce mooy 33 821 12 18 821 12 18 ma bantuwaat ko su ko defee ñoom dinañ ñëw verbaliser leen teg leen ci yoon ndax actuellement état jël na décision yu mot ginnaaw wax nañ ko li ñu gisee ak population yi wax ko li ngay gisee loolu moo tax mu jël décision yooyu état tamit def na bàyyi 47 milliards yoo xam ne ay tax la yu nekkoon ci produit yi yoo xam ne bàyyi na ko pour bañ produit yooyu yokk ndax lu ci mel ni blé dafa yokk bitim réew moo tax taxes yi jëm ci ay farine ak yooyu ñu dindi ko pour bañ mu impacté mburu mi lu jëm ci diwlin bi tam am na ci yenn taxes yoo xam ne dindi nañ ko ci huile brute bi nga xam ne mooy jógee bitim réew pour que ñiy defar diwlin fii di ko gën a segal seen prix ba ñuy yéeg donc suukar bi aussi comme dafa am loo xam ne moom lañ produire ci biir réew mi ñu war ko mottali ak cinquante mille tonnes yi ñu war a importer moo tax tam ñu teggi taxe bi ci loolu. mais est ñu ngi koy appliquer fi toll nii parce que euh, d'après conseil. Euh, bi bi bi jàll bi maanaam euh, proposé nañ à ce que taxi yi ñu jëlee leen de 18 pour cent à 6 pour cent est-ce que ñu ngi koy appliqué. waaw léegi loolu c'est déjà d'application immédiate donc fi mu ne nii moo tax jël nañ arrêté ne ku romb prix yi ñu dal sa kaw waaw loolu moom moo mooy mooy nouvelle bu neex bi pour consommateur yi suukar bi léegi dellowaat nañ ko 600 ku ko jaay lu ëpp 600 ñu dal sa kaw. Mm-hmm. léegi par rapport ak li nga xamante ni mooy euh, association des consommateurs du Sénégal jafe-jafe bi ba mu commencé yan jéego moo nekk yi nga xamante ni moom ngeen dox. suñuy jéego mooy nan lañ mën a def ba solution am su ko defee dañuy dem waxtaan ak techniciens yi waxtaan ak administration waxtaan ak kilifa yi ne leen ñun lii lañ gis te lii fii la jëm te kon lii ak lii mooy solution yi nga xam ne buñ ko defee mu sotti loolu. bokk na ci li tax tey jii ba état bi jël décision yi mu jël donc ñun chaque fois bu jafe-jafe amee nañu seet nan la ñuy waxee ak état pour ne ko ah lii kat ñun lii lañ gis jàpp nañ ne lii buñ ko defee dina baax. d'accord mais sànq rek euh, ci suñuy njàngat maanaam dafa mel ni dafa am population yi parti boo xamante ni mun jàpp naa ne yëguñu wàññi wàññi yi nga xamante ni am na wala yëguñu maanaam wàññi wàññi bi trop parce que liñ doon jëndee. peut-être bu fekkoon ni changé na de manière euh, ñu à ce que ñu sentir ko dinañ xaw a dalal seen xel. waaw parce que actuellement wàññi boobu commencé gul. arrêté bi tey lañ ko jël. donc pour nga mën a gis wàññi bi il faut nga dawal ay deux jours pour euh, nit ñëpp yëg information bi. waaw ndax loolu dëgg dogal la yoo xam ne tey lañ tey la tey la tey lañ ko siiwal waaw. démb ci guddi lañ ko jël siiwal ko tey. donc loolu moo tax jàpp nañ ne. Euh, fii ak deux deux trois jours mhm. ñëpp dinañ ko yëg. dinañ ko yëg d'accord léegi par rapport ak li nga xamante ni mooy yéen toujours rek. parce que ku wax consommateur c'est vrai population bi yëpp a ngi fi et mais seen xel ci yéen lay dem parce que du ñoom ñooy jóg dinañ revendiquer et tout et tout mais euh, du ñu am peut-être benn approche direct ci li nga xamante ni ñooy autorité yi jël décision yi et léegi en tant que président lan moo nekk rek li nga xamante ni euh, recommandation la wala conseil la boo xamante ni moom ngay jox euh, ñi nga xamante ni ñooy consommateurs yi waaw déjà pour ñu gën a mën a dalal seen na ay actions nga xamante ni ñu ngi koy li nga xamante ni moom mooy situation bi. waaw li effectivement parce que xam nga soo seetloo dara. su jafe-jafe amee Sénégalais yëpp dañ naan ana Ascosen. duñu wax ana parti politique nangam de moo xam opposition moo xam parti au pouvoir duñu wax ana mouvement nangam de duñu wax ana chef religieux yi de dañ naan ana Ascosen ñaar fukki ñaar fukki association ak consomateur ak juróom am nañ ci réew mi. mais duñ tudd benn Ascosen la ñuy laaj xam nga lu tax parce que Ascosen moo leen défendre fanweeri at ak ñaar ñuy gis ñu leen di défendre donc suñ toogee dégguñ ñu ñu wax sax dañ naan oh ana ana Momar Ndao dégguñ ko mu wax bu ko defee ñu bari ñii di commentaire ñii di commentaire mais nañ xam ne ñun jéemuñoo wax li ñuy lijjanti mooy fexe ba solution am mais demuñ pour wanewu pour génn télé wala pour def comme politicien xam nga politicien comme li Ismaïla loo doon wax wax rek mu ne kuy woddoo làmmiñ boo noppee lafre moo tax politiciens yi daf leen di jaral suba midi ngoon ñuy def bir wi pour ñu tudd leen ñun nag defuñ loolu dañuy liggéey léegi-léeg nag ci liggéey bi ah euh, ñu soxla dégg luñ luñ def euh, euh, ba tax télévision yi di ñu invité ak yooyu mais ñun jéemuñoo dem ci télévision yi boo xoolee sax xaw ma kañ lañ gëj a def conférence de presse parce amul njëriñ pour ñuy wanewul li am njëriñ mooy ñu régler problème yi nga xam ne moom mooy jonkonte ak population yi loolu moo tax à chaque fois bu problème amee ñu yëg ñu yàq yëg ñi ngi koy dox fañ ko war a doxee pour que ñu jël décision yi ñu war a jël ndax loolu mooy liy dimbale askan wi. waaw mais c'est c'est important aussi euh, population bi euh, xam li ngeen di liggéey c'est vrai liggéey dans l'ombre c'est bien bon parce que bu. Euh, solution amee asko seen dina ci réjouir parce que dina gis ni moom li muy xeex mu ngi am avancement mais c'est important aussi pour population bi ñu xam ne ñi nga xamante ni ñoo leen fi nekkal ñooy xeex pour ñoom ñu ngi def lii même bu fekkee c'est juste pour dalal seen xel en attendant euh, solution di am effectivement loolu nga wax moom d'accord nañ ko loolu moo tax sax ñun amul benn média bu ñuy solicité ñu gantal ko ndax tam ba tey su fekkee ne bëgg nañ ñu leeralal askan wi dinañ leen leeralal waaye suñ démarche daal nekkul di dem ci média yi di wër di wax pour ñu ne ñu ngi liggéey te fekk liggéeyuñ dara ñun dañ bëgg suñu laajee rek fu ngeen toll ngeen def rek ñu ne ah def nañ li def nañ li def nañ li ak lan ban résultat ñu ne résultat bi résultat bi résultat bi ndax loolu mooy intérêt askan wi donc loolu rek la quoi du dara mais euh, vraiment ñu ngi def liggéey bi kuñ gis nag ci liggéey bi nga war a def dara defoo ko dinañ ne defoo ko fañ ko war a waxee tam danañ ko wax loolu moo tax depuis boo xoolee depuis euh, presque janvier ba léegi ñu ngi naan na ministre du commerce def liggéeyam gis nañ ne moom mi ngi def ay politique ay Kër Massar mais moom bu buggee sax réussir Kër Massar il faut mu réussir liñ ko dénk suñ ko dénkee dara bu réussiree bu demee Kër Massar ne ah man kat maa réussir li waaye yow liñ la dénk defoo ko ngay dem di politique du sotti donc ñun depuis janvier ñu ngi dénoncé loolu ñu ngi wax loolu ñu ngi koy wax fañ war a waxee pour que euh, état bi bàyyi xel ne fii la situation bi toll et war nañ ko lijjanti ci nu mu gën a gaawee. Mhm. léegi recommandation yi vis-à-vis de des autorités de lan lay doon pour euh, rendre. yi mooy gis nañ ne <clears throat> am na effort yu ñu def moo xam ci li jëm ci mburu meeg farine beeg ñoom i seen mais am na yeneen recommandation gis nañ ne li nga xam ne mooy diwlin gi am na taxe yoo xam ne droit de douane yoo xam ne boo ko totalisé dafay nekk à peu près quatre-vingt-quatre pour cent kon. ñu ngi ñaan état aussi foofu mu xool lu mu poroo ci tuuti pour que vraiment njëg yi euh, supportable ci consommateur yi ñu ngi ñaan tam consomateur yi képp koo xam ne gis nga kuy jaay prix bu dul prix bii nga xamante ne bii moom lañ joxe tey jii ak képp koo xam ne dem nga ci bitik affiché wuñ fa prix yi na nga woote si 33 821 12 18 mooy service régional du commerce de Dakar bu dee régions yi nañ dem ci seeni région seen service régional woote fa pour signaler ko su ko defee ñoom dinañ ñëw verbaliser ñooñu ñu tegaat leen ci yoon. d'accord léegi lan mooy nekk sa mot de sama mot de la fin daal mooy nañ xam ne euh, ñun suñ ñoom suñu yëgee ak suñu yëgul yëpp ñu ngi leen di défendre dinañ nag gën di waxtaan pour ñuy dégg tamit di xam fuñ toll ci liggéey bi ndax loolu dëgg la bu fekkee ne ñu ngi leen di défendre tam war nañ koo xam war nañ koo yëg kon d'accord nañ ci li ñuy wax naan dañ bëgg nañ di ñu dégg loolu am benn problème. donc cher euh, internaute de la KS TV li leen leen indiloon tey ci seen première partie wu émission le citoyen et comme niñ leen ko waxee ñu doon dalal ki nga xamante ni mooy euh, monsieur Momar Ndao di euh, président association des consommateurs du Sénégal ñu doon waxtaanee nag li nga xamante ni moom mooy la flambée des prix des denrées de première nécessité mu nekk situation bi ñëpp di dund fi mu toll nii au Sénégal mu indi ci nag ay éclaircissement indi ci aussi ay leeral par rapport ak solution yi nga xamante ni autorité apporté nañ ko pour remédier rek ci situation bi ñu nekk euh, di di dund donc euh, monsieur ndaw dañ lay remercier bu baax ci euh, disponibilité bi di la remercier aussi ci effort yi nga xamante ni yéen a koy def pour soutenir la population et ci leeral yi aussi parce que comme ni nga ko waxee am na yoo xamante ni c'est important population bi xam ko te du n'importe comment lañ koy xamee mais ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy les mieux placés comme waa ASCOSEN ci lañ ko mun a xame aussi donc di la di leen jox donc ni ñu ko waxee rendez-vous très prochainement pour euh, yeneen i leeral ak li nga xamante ni aussi moom mooy euh, yeneen information par rapport ak euh, situation bi donc dinañ ci revenir at monsieur Ndao très prochainement peut-être pour xool ndax règle yi nga xamante ni moom lañ jot a teg ak mesures yi nga xamante ni moom lañ jël ndax ñu ngi koy appliquer mais pour aussi xam ndax population bi ñu ngi ciy bénéficier wu comme cela se doit donc ñu ñëw ak yéen tout à l'heure ci deuxième partie bi nga xamante ni moom moo concerné avis de la population à tout li ma gisee moom métti na vraiment métti na sama côté moom ah way ndax euh, bu ñu yokkee njëggeeg yooyu noonu xam nga euh, parfois da ngay da ngay bëgg añ jënd ndékki te keroog maa ngi laajte ñu naan euh, affaire dafa yokk ñu naan naan deux cent te man chaque fois ay fanweer te ma war suñu waa kër xam nga lu dafa métti te ñun dañoo doon xale xale boo xam ne dañuy dañuy daan suñ doole pour yóbbante suñu waa kër xam nga mais nag dëkk bi nag vraiment war nañ cee wax de ah way ne vraiment ndax way ñu ngi ko yëg bu baax suñ côté moom dafa métti moom vraiment métti na waaw ba moo ñuy wax ci nag nañ ci wax. mais mais gars yi ñoo war a takku rek buñ takkoo jug euh, li leen di affaire yi xam nga euh, Macky Sall moom comme ni nga ko waxee yokk na affaire comme ay suukar ay yooyu mais dañ cee war a wax vraiment nag mu wàññi affaire mu dimbale ndaw ñi ndax sonn nañ vraiment ay xale lañ dañuy daan doole ñëpp si même côté sax. même ku waxut euh, métti ci yow danga am da nga am xaalis xanaa. ah metti na moom fi metti yam moom mais nag nañ ko sante yàlla xam ne moo fi nekk ya metti na mais dañ koy jënd jënd ndax nit ñi duñu toog te lekkuñu foo ñu lekk metti na moom fa metti yam fa dëgg yàlla ndax boo daan indi 5000 marché léegi di 000 ngay indi ndax marché bu metti lépp lañ yokk lépp lépp metti na daal chaque jour que nag nag loolu la ñuy xuloo ñun chaque jour dañ leen leen bu marché bi mettee da ngeen a war a yokk ñu ne du yéen bu marché bi neexee du ngeen wax wàññi leen yéen daal bu mettee rek yokk ngeen di wax noonu daal la demee ah xanaa wax nguur gi rek ñu wàññi dund bi metti na torop wax fa dëgg yàlla ndax yow mën nga koo mën mais am na ñoo xam ne mënuñu ko bala ñoo dund day metti si ñoom mais yow lu mu metti metti yàlla mi ngi lay suturaal ba yaa ngi lekk yaa ngi naan mais nag ñi ñi yorul ñooñu mooy metti si ñun mais nag ñu ngi sant yàlla bu baax ndax yàlla mi ngi ñuy may metti na mais chaque jour mi ngi ñuy may luñ ko jëndee. voilà chers internautes de la KS donc lii lañ leen indiloon tey ci seen émission le citoyen. mais comme ni ñu ko waxee au début rek ñu doon waxtaanee li nga xamante ni moom mooy la flambée des prix des denrées de première nécessité mu nekk nag jafe-jafe boo xam ne depuis un certain temps ñu ngi koy dund fii nii au Sénégal ñu doon dalal rek ki nga xamante ni moom mooy euh, monsieur Momar Ndao di euh, président des consommateurs du Sénégal euh, ngeen gis nag moom tamit comme tout comme tout Sénégalais ni mu jàngatee maanaam ni mu gisee li nga xamante ni moom mooy situation actuelle bi ñu nekk di dund par rapport à la cherté des prix wax ci nag li nga xamante ni mooy jéego yuñ ci jot a def ba mu am ay euh, solution wala ba mu am ay avancé par rapport ak euh, cherté yi nga xamante ni moom moo fi nekk di euh, wax aussi li nga xamante ni mooy population bi rek vu que def nañu ay jéego ba mën a am ay solution par rapport ak jafe-jafe wu cherté des denrées alimentaires yi ñi nga xamante ni ñoo population bi nag ñoom ñoo ci des maanaam li ñu mën a def mooy xam li njëg yi di jar képp koo xamante ni rek wàcc nga li njëg yi njëg yi nga xamante ni moom la ñu mettre sur le marché nga dénonce ko soit ci numéro Ascosen soit ci numéro yi nga xamante ni ñoom la fi gouvernement bi teg pour ñu mën a euh, maanaam indi ay solution yu euh, yu permanente maanaam par rapport ak euh, situation yi ñu nekk di dund aussi par rapport ak avis de la population gis ngeen li ci population bi wax euh, ñëpp nuñ ko dundee ñëpp am nañu souci ñëpp xam nañ ne denrées yi yokku nañ ñëpp xam nañ ne aussi euh, situation yi difficile nañ mais ay solution ñu ngi koy apporter parce que ñi nga xamante ni ñoom ñooy ministres yi ministre du finance du commerce et du budget ñu ngi ci ay jéego ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu boobu lu ci mel ni wàññi TVA yi de 18 à 6 pour cent wàññi aussi li nga xamante ni moom mooy euh, taux yu ñuy fixé ci sucre bi donc li ci des mooy population bi jéem a xam prix yi jéem a xam aussi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci prix normal yi loolu bu amul ñu yóbbu ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo adéquat pour mun a lutter contre loolu en attendant des solutions plus adéquates maanaam des solutions plus souples yoo xam ne dinañ arranger population bi mën a jàppale population b ñu génn ci situation bi ñu nekk di dund mën am donc euh, lii lañ leen indiloon ci internet de la KS TV ci matin bu tey di leen jox dig daje rek euh, beneen yoon ci yeneen émission yeneen numéro ak yeneen invité d'ici là euh, soyons de très bons citoyens ñaan yàlla nag euh, mu indi jàmm génnee fi mbas mi li nga xamante ni mooy suñuy condition de vie aussi mu gën ñu ko à l'échelle ba ñu gën a dund dans de meilleures situations donc à bientôt merci beaucoup